إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم <coughs> غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 no ngi len di nuyu te di len siara di len ñaanal jamm ak tawfiq di sakku ci yeen di yaasa sunu njëbbal ci ak sunu bëgg ak sunu tofel ci maulana abdullahi wa khadim rasulih cheikh ahmad bamba khadim rasul serigne touba di ñaanal ñepp jamm ak tawfiq di sakku ci yeen di ñaan yalla mu ñu ci mom ak tofel aku bëgg aku jublu waxtu wu ne su nek tay nag la atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett di ñaar ko fan ak juróom ñeent ci weeru gàmm ci calendire gàddaay gi mooy eh, calendire weer wi muy hijria ba tey di juróomi fan ci weeru fukkeel ak benn muy novembre Eh, di atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn muy 2021 ci calendrier jant bi ci bi ñuy tàmbalee di wàññi ci juddug yonte yàlla isa alayhi salaam eh, di fukk fan ak ñeent ci burju al haqarab 1400 ci diggante calendrier jant bi ak calendrier eh, gaday gi ñu di leen nuyu di leen siyaara di leen fàttali ne teele séentu bu njëkk ñaar fan ci weeru gàmmu ñuy séentu weeru rakkaati gàmmu te mooy rabiixu saani yi mooy rabiixul axiir ci woneen waxiin ñuy ñaan fu waaye gis weer wi mu yëgle ko tey nag bu fekkee jaww ji set na mënees naa gis weer wi tey gisug weer wi ci jaww ji set la aju bu jaww ji seetoo setee daal moom gis weer wi mën na nekk ndax tey weer wi weer wi mi ngi judd woon démb ci novembre ci vingt et une heure wi juddu démb vingt et quinze kon euh, suñu demee ba dix huit day fekk weer wi am ñaar fukki waxtu ak benn mooy vingt et heure kon gis gi mën naa nekk bu fekkee jaww ji set na te am na ci leeraay mooy lumière un pour cent virgule quatorze un pour cent virgule quatorze kon gis gi mën naa nekk euh, am na distance dana xaw a sore ci jaww ji ci degré lu toll ci treize pour cent treize degré kon gis gi moom lu mën a nekk la tey euh, jant bi mi ngi so comme masalan bu dee fii ci Touba dix-huit trent trente-quatre minutes la jant bi di so weer wi mi ngi so dix 20, fi ci Touba dix neuf heures kon seen diggante 45 minutes dox na fi manam jant bi dana sox moy dana so wessu suñu suñu gox ba am 45 minutes wéru dor ko wessu kon tay gis wér wi bu féké jawu ji setna gis gi man na nek ci bir lolu may fatali ne ci walu xam-xamu astronome dafa am luñ ci soxla lu ci sharia soxla waaye du loo xam na da ciy sukkandiku cent pour cent ci saxal weer ba dàq aw weer loolu tamit gëstukat yi nañ ko bàyyi xel lan la sariya soxla ci xam-xam astronome mooy ñu xam jant bi kañ lay so weer wi kañ lay so ñoom ñaar lu ñu rawantee weer wi ñaata mii lay am ci jaww ji ginnaaw sowu jant bi ñaata mii la ko jant bi njëkk a sowe weer wi nan lay leere ndax leeraay ko dana may bët gis ko wala du ko maye. loolu la ru'yatu saraxiya soxla ci ru'yatul falakiya waaye nag amaana ñu mën a sukkandu ci aw weer ci fëlëg ci saxal weer wi ak dàqu moom loolu munta ne xam-xamu fëlëg liñ ciy soxla mooy jant bi ñaata mii lay njëkk soo weer wi jant weer wi ñaata waxtu la am ci jaww ji ñaata la leere leeraay bi fan la toll ci ay pour cent ndax ni mu mel ndax bët dana ko mën a tëg bët wala déet loolu lañu soxla ci xam-xamu fëlëg ñu koy bàyyi xel bu baax loola xam-xam dàq ko li xam-xam dàq na mooy naan weer waa ngi fi dañoo war a tàmbali te bët mënu koo gis bu fekkee bët mënu koo gis rek sareexa moom dàq na xam-xam boobu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa sàkkoon ci weer pour mu mën a sax faaw nga mën koo teg bët waaye lépp loo xam ne mënee su koo teg bët su boobaa duñ ci mën a sukkandiku ndax suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in qumma alaykum xamoon na ne weer wi mi ngi fi ci jaww ji weer wi moom du jóge ci asamaan si waxtu wu ne mi ngi fi waaye nag léeg-léeg jaww ji mën na man na mën na lëndëm mën na lëndëm wala mu poussière mooy fa in quma aleykum fa akmilu salaasina yawman waaye beneen ci riwaaya ci imam muslim mooy ci saxiixul muslim fa in kaanat duunuhu xayaabatan mooy bu fekkee dafa am ay niir kon weer moom mi fi waaye fekkee dafa niir nag ba niir yi tax mënuñoo gis weer wi ba tey motal leen fanweer kon weer moom ci mu sax ak ci mu ñàkk sax ci bët gis ko lay aju waaye aju rek ci ne weer wi mi ngi fi ndax fëlëg moom kañ lay tàmbalee di wàññi mooy waxtu woo xamee ne jant bi njëkk naa soo weer wi pour moom tàmbee naa di wàññi foofu waaye ba tey fëlëg du nangu nag ne gis nañu weer wi loolu tamit ñu koy wax nañ koy bàyyi xel am na benn mission bu ma déglu ci Cheikh Moustapha Sylla ak ci beneen waaye bu ñu dala waaye waajooju la muy wax tegu ci xam ndax fëlëg li ci gën a wér mooy fëlëg dana nangu ne tey jant bee njëkk soo weer wi muy tàmbali di wàññi ci ay calculam waaye ba tey du saxal ne bët mën na koo gis ginnaaw bët mënu koo gis nag charia moom ruya la wax ruya bokkul basariya bokkul ak nasariya bu doon basariya ak nasariya mënees naa sukkandiku ci fëlëg totalement maanaam ci anam yépp mais nag ruya moom mooy bët a koy def mooy bët moy mana gis motax yeen yéen saa sallam jëfandikoo li ru'yatihi li ru'ya way li basiratihi moom wala li nasiratihi soomoo li ru'yatihi bari info ñukoy jang ñukoy bayyi bad xel bat biñ jeufnuko Al ban bat la sunu borom sa bo waxe ci alquran lo xamne dafa aju ci jumtukaay gisinu jumtukaay du jeufandiko ru'ya su ajoo ci lo xamne beut la na mu basratan li ru'yatihi araayta la si yana haddan isa sala moy abo jahlin da dan fek yende bi julli mu diko tere da daan gis dawul yoon appareil di ko xool waaye nag noonu tamit salaay bi mi gis boromam da ko gisee ci bëtam wala hadra min ayati rabbil kubra di wax ak mom di wax ak mom wala hadra bil mubin di wax ak mom ba ci ne maa shaaxal ma taha kon bu fekke dafa aju ci lo xamne nak da ca amu yon mooy lu mel ni kawtéef yi yàlla denc ci asamaan si wala kawtéef yi mu denc ci suuf si nga xam ne loolu bët kese du ko gis mu ne nag xul unsuru xul unsuru maa fi samawati wal ard wa maa tuxni ayaati wa nuzur an qawmin laa yuminuun euh, planètes yi ne ci jaww ji nga xam ne ay multi milliards la wala galaxie yi fi nekk muy ay mille téeméeri téeméeri milliards wala doj yi fi nekk wala xeer yi wala tàngooru fi nekk wala sedd bi fi nekk loolu bët du ko xool di ko gis fokk dañuy am ay appareil moo tax mu ne xul unsuru na ngeen seetantal kawteef yi ma def ci jaww ji man sama bor man man seen borom waaye na ngeen seetantal kawteef yi ma denc ci suuf si muy diggante ndox ak weñ ak or ak jamaa ak mboolem ressources yi nga xam ne ñooy nekk ci suuf ni ki pétrole ni ki gaz armi yooyu noonu bët képp mënu koo gis moo tax ba ko yàlla di wax mu mu mu jële fi ruya indi nasara kon yooyu tamit ñuy bàyyi xel ci baat yooyu bu dee ci wàllu weer nag ruya la ñu wax soomoo li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi bu ngeen ko gisee ak bët weer dañ cee sàkk gis ko ak bët li ci fëlëg di joxe nag mooy fëlëg mën nañoo jox ci norme yi nga xam ne mënees na ko gisee ak bët ak déet moo tax fëlëg saa bu weer waree feeñ dañ ci mën a xamee ndax weeru bët bët mën a cee tege wala mënu cee tege su ci bët mën mënee tege ru'yatu sarixee daal di saxal ci kaw nag ñu séntu ko ba ko bët bu ci mut bët mënut a tege nag ru'yatu sarixee daal di dàq weer woowee ak donte séntu nañu ko gisuñu ko boroom xam-xam yi nag ñëw nañ ci ay détails yaatu xëy na danañ ci ñëw beneen jotaay waaye tey daal liñ mën a wax mooy weer yi mën naa feeñ ci kaw bu fekkee jaww ji set na bët dana ko mën a gis su jaww ji setul nag bët du ko mën a gis su bët setee tamit nga xam ne jaww ji su su su jaww ji setee tamit nga xam ne bët mën na koo gis waaye ci kaw ñu séentu ko te séentoo ko ni ñu ko war a seen ni ñu ko war a séentoo dama koy wax waxtu wu nekk di séentu weer ba noppi taxaw fa suufee ci nga xam ne fi nga xam taxaw daa xuure terrasse ak étage tiim la weer yi mën na feeñ te doo ko gis kon bu ñu séentu weer yi nañ koy bàyyi xel léegi dafa am ay barab yoo xam ne jàkk yi ñu koy séentoo yoo xam ne biir lu mel ni jumaay Tuubaa léeg ñu taxaw day xóot nga xam ne weer yi mën naa nekk ci cercle bi ci suuf te doo ko mën a gis kon aju na ci ñuy xool place yi ñuy séentoo weer loolu dara nekku ci te itam ñu bañ di ko séentoo benn gox képp taxaw fenn ndax Touba quartier yi bari na ay quartier yu bari ñu nekk Touba kon war nañ ko mën a janatu quartier Jannatu quartier Daaru Xudoos Daaru Manaan Daaru Minan Daaru euh, dégg nga ay quartier yëpp Cham Jannatul Xaaliya Jannatul Xadanin Umul Xora Ngiraaneen Alom nga su quartier yooyu yëpp ba mu jeex fu ci nekk war naa am yuy séntu weer ba Touba daj quartier yépp nga dem Diourbel ba Diourbel daj nga dem Thiès dem Dakar nga dem Louga ba Sénégal daj bu doon loolu weer du am problème te di bañ di sukkandiku distance boo xam ne dafa gudd masala nekk Sénégal bëgg fee indi waa Mali bëgg fi indi waa Côte d'Ivoire bëgg fee indi waa Nigeria bëgg fee indi waa Cameroun rawaate na nag nga nekk Sénégal ba fee indi waa Arabie Saoudite ba fee indi waa Yémen ak ay waa Tunisie ak waa Égypte yu mel yooyu moom tegul ci xam-xam ndax bokkuñu benn gox loolu Seydina Omar moo ko saxaloon yeneen saa salama saxal ko Abdallah ibn Abbas saxal ko dëkk boo xam ne yaa ngi leen ab gox waroo caa mën a sukkandiku comme réewi yi bu ngeen bokkee ab gox nag fu mel ni Sénégal nga xam ne ñun ak Mali ak yenn dëkk yi ñëw ci Afrique ñoo bokk gox waaye nag ci kaw ñoom ñu féetu ñu sowwu jant bi waaye yàlla dogal na Sénégal moom mujj ci sowwu jant bi ñun benn dëkk benn réew féetuwuñu ci sowu bi fi jant bi sowee du Mali du Maroc du Mauritanie du Cameroun du Nigeria du Côte d'Ivoire dëkk yooyu yëpp Dakar moo leen mujj ci sowu jant bi amul benn réew ci àddina bu féete dakaar fi jant bi sowee bu fekkoonte réew yooyu ñu bokkal benn gox nag ñoom ñoo ñu féete ci sowu jant bi kon subaa senegal mën na cee sukkandiku waaye léeg-léeg weer wi dafay demee noo xam ne Sénégal du ko mën a gis ba noppi na nga dégg yonaan naan feeñ na Côte d'Ivoire ak feeñ na Mali ak feeñ na Nigeria ak feeñ na Cameroun yooyu moom ay théâtre la Sénégal bu munta gis weer benn réew yu ñu wër ci Afrique du teg weer yu bët te boo lay topp ci astoronom saa bu ñu nee weer feeñ na Mali wala Côte boo xoolee mul fëlëg day dàq loolu ndax léeg-léeg weer wi day so Mali saa bu ñu nee weer yi feeñ na weer day so lu man ñaar fukki minute jant bi door a sox te bala ngaa xëy suba dégg ñu naan feeñ na Mali léeg waa Côte d'Ivoire def noonu léeg waa Nigéria def noonu nga xam ne date bi heure bi lay jox ne ñoom gis nañu weer yi fekk na weer suux na lu jiitu loolu 23 minutes léeg-léeg ay 30 minutes léeg-léeg ay 17 minutes kon yooyu tam dafa mat di xam jëlee naa nag réew yi naar yi moom Sénégal ñu ñëw ne fi discours ko ci Màkka wala discours beneen réew ci wàllu weer kooku moom mënta nekk koy wax rek xamoo dara ci xam-xamu fële xamoo dara ci xam-xamu jaww ji wala suuf si waaw jàngi riwaaya ci téere ay xaala xaala rasul ay taxul nga xam loolu kon loo tam lu jot di bàyyi xel la ñu ci nuyu ñëpp di siyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiix di ñaan suñu borom defal ñu xéewal gu yaatu euh, ku gis weer yi ngay yëgle ko ba ñëpp mën cee jot incha allahu taala euh, mënoon naa gën a gudd waaye dañoo xaw a jàpp nekk ci yitte moo tax kon ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex di ko sàkku ci yéen di xam ne daal ne tey la séentu bu njëkk bu jaww ji seetee mënees naa gis weer wi ak tamit ci condition yi ñu koy séentoo nañu séentu weer wi jullit bu nekk sunna la ci yow ngay séentu saw weer maanaam ngay séentu weer wi sunna la ci yow ngay weer wi waaye toog rek dëkkub lëmm benn kuréel yor ko di ko séentu weer yi mën naa feeñ ba pare duñ ko gis wala ñu saxal na weer yi feeñee te fekk weer yi feeñul ndax léeg-léeg heure yi ñu wax naan gis nañ weer yi day fekk weer du fa ne kon yooyu dañ ko sukkandu ci fëlëg nag sart yi fëlëg joxe muy astronome ci ne weer yi mënees na koo mooy na fekk na weer wi lu mu gàtt gàtt am na lu ëpp ñaar fukki waxtu ci jaww ji na fekk na jant bi njëkk na ko sowee lu ëpp 35 na fekk na weer wi am na ci leeraay lu mu gàtt gàtt 1 pour cent na fekk na weer wi ci degré ci jaww ji am na ci euh, toll na ci lu mu gàtt gàtt 9 pour cent fii la xam-xamu fa la tënk ci ndax bët mën na koo gis su ko mooyee danaa la bët mënu ko gis wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.